Euh, di wax ni euh, dañu fi ñëwoon tey pour euh, waxtaan ak ñi nga xam ne nii ñooy sénégalais yi ci li nga xam ne ni moom li fi gouvernement bi teg ci nga xam ne ni mooy mesure ngir li nga xam ne ni moom moo xew ci àdduna bi te ñu koy dund waxtu wu ne saa su ne. muy yokkute njëg yi nga xam ne ni moom la ñu gis di ko dund ci marché international ñuy wax ni dañu koy teg ci contexte économique bi ñu nekk ñu nekk ci contexte boo xam ne ni c'est extrêmement défavorable gis ngeen ko dañoo génn ci li nga xam ne ni génn guñ ci sax dañoo yaakaaroon ni commencé nañu génn ci li nga xamné ni moy impact yu négatif yi ñu doon constaté ci mbas mi parce que mbas mi dund nañ fi lu metti disponibilité produit yokuté produit yi cherté fret bi yokuté dollar bi yokuté pétrole bi ñu commencé won nak di dundat touti yaakaar ni économie mondiale bi dina reprendre waaye yàlla nattuñu diggante bi guerre bi éclaté entre la Russie et l'Ukraine guerre nak mo andi wat li metti doon ci Covid bi parce que tay li pratiquement dundu ñu ko Covid bi ma wax Covid bi affaire yu prix yi coût de transport mais non seulement ñi prix flambé sur le marché international mais légui sax pénurie sur le marché international parce que produit

ñu gis loolu Indonésie gis nañ loolu aussi Europe parce que Europe huile de tournesol moo fay dox te huile de tournesol bi fi ñu ko doon jëlee Ukraine la ak Russie Ukraine guerre bi moo Russie sanctions économiques yi moo tax aussi te keneen ki leen mënoon wallu mooy Turquie Turquie nee na moom tamit huile de tournesol am du génn ce qui fait que léegi ñëpp tey seen bët ci li muy tourné mooy dem jëndi huile végétale de palme bi te ñu ni tamit suñu consommation li ci ëpp ci huile végétale de palme misaal boobu rek laa leen doon bëgg jox pour wax leen ne conjoncture internationale bi tey moom moo ñu dab ci li nga xam ne ni pratiquement euh, envie gouvernement bi ak décision gouvernement bi bi mu jël pour faire baisser les prix donte mesure bu courageuse parce que kenn xalaatul woon ni contexte bi ñu nekk ak situation bi ñu nekk prix mën na wàññeeku gouvernement bi jël une mesure courageuse ne man damay wàññi prix wu ceeb ordinaire bi damay wàññi prix wu doolin bi damay wàññi prix wu suukar bi teg samay moyen teg samay dispositif pour dimbali consommateur sénégalais bi état bi xayma ni lu toll ni 67 milliards laay jël ma bàyyi ko ci li nga xam ne dama ko doon jël ci taxe ma jox ko consommateur bi parce que finalité bi mooy lan mooy ko ni consommateur bi mën na ko sentir ci poche am nan lañ ko doxalee mooy que ni dañu ne ni que dañu jël li nga xam ne ni moom la sénégalais yi moom la ñu gën a jëfandikoo boog ñi nga xam ne ni ñooy gën a néew doole ci ci réew mi ñooy jënd ceeb ordinaire ceeb ordinaire bi ñu ne léegi comme noonu la demee dañuy jënd lépp luy droit de douane ndax sénégalais bi mën ko jënd 275 au détail te pour sénégalais bi mën ko jënd 275 au détail il faut ñu dimbali importateur bi wan teggil ko droit de douane bi parce que moom li mu koy jëndee Inde bu ko indee fii Sénégal bu ci tegul sax dara am na sañ jaayee ko 300 francs ñoom itam ñu def seen effort wàññi sax seen marge bénéficiaire état def effort wàññi droit de douane dindi droit de douane mi pour que consommateur bi mën ci gis boppam ñu def loolu la même chose ci dëwlin bi def loolu la même chose ci suukar bi parce que suukar bi aussi dañoo renoncer à la taxe complémentaire TCI bi ba pare wàññi valeur en douane bi nga xam ne ni moom mooy permettre gars yi mën na dem am sañ-sañ dem jëli suukar bi indi ko mën ko jaay ci prix 600 francs bi nga xam ne ni moom la ñu donc contexte boobu nag tey moo ñu fekk si malgré lu ñu fekk si ñun dañu ne ob ñaari objectif la gouvernement bi am mooy que ni produit yi déjà na fi ne na fi nekk nit ñi di ko mën a gis di ko mën a jënd bu fi nekkee nag nit ñi di ko mën a gis di ko mën a jënd ñu def nag maintenant suñu kéemtalaay kattan pour que njëg biñ koy war a jëndee mu gën a vraiment mën a nekk lu leen méngoo ak li nga xam ne ni moom la ñu mën parce que bu ñu toppee li xew ci marché international bi rek kenn du mën a jënd prix wu ceeb diwlin suukar mais gannaaw état def na effort consommateur bi war na ci mën a gis boppam ñu ne ceeb bi war na ci mën a gis boppam si bu ko jëndee 275 cent bi war na ci mën a gis boppam bu ko jëndee 1100 francs suukar bi war na ci mën a gis boppam bu ko jëndee 600 francs lu tax loolu parce que Sénégal dañu am régime de liberté des prix boo xam ne ni marchandise yi boo jëlee li ci ëpp ñeent rek la ci état bi fixé prix am parce que loi bi moo ñu tënk ci loolu parce que ñun ñoo opté pour une libéralisation de notre économie loi bi daf ñu tënk ni mën nañu fixer prix yu ceeb ordinaire mën nañu fixer prix yu diwlin suukar en poudre ak mën nañu fixer prix yu gaz butane moo waral léegi boo demee ci marché bi ñun prix yooyu contre ñuy contrôler nit mën na ci marché parfumé 400 francs ne a ah, man wàññi bi ñuy wax man alors que dafa waroon dem laajte ordinaire il foofu sentir ni que prix bi wàññeeku na wa ila mu jëndi bi bi parce que boo demee jënd suukaru bekk ñu 800 wala 900 da nga naan ah ñii li ñuy wax man gisuma mais suukar bi ñu bu bi en poudre 600 francs le kilo

boo demee ci tournesol bi tey mu ngi ci 1700 francs nga dem ci huile de soja bi moo xaw a gën a yomb mu ngi ci 1500 1600 voilà donc loolu contexte boobu la ñu nekk ni état bi jël mesure bi ñu teg suñu dispositif waaye tey fan la ñu toll doxal nañu ñaari weer ci li nga xam ne ni moom mooy suñu doon premier objectif bi mooy que ni nañu seet produit d'abord na fi nekk parce que ñu ngi yoon ci situation période boo xam ne ni li ci li ñu dajale moo bari ñu ngi ci mois d' avril sunu mbokku chrétiens yi dugg nañ seen carême te ku wax carême carême chrétien da nga xalaat ni ñoom ci si njeexantal bi dañuy defar ngalax te ngalax bi dafay laaj suukar bu bari ñu ne ñun ñu ngi commencé woor sunu koor gi li ñuy laaj ci suukar ak ceeb dafay bari ñu ne ñu ngi jëm ci pak pak bu ñu soxla aussi la même chose ñi ne ngi jëm ci korité korité tamit ñu soxla dëwlin soxla ceeb ak sax ba jëm sax ci ak soble pomme de terre ñu sant yàlla nag ñu ngi ci koor gi yàlla na ci yàlla yóbbu ak jàmm mais tey une pénurie fii ci Sénégal amuñu pénurie sucre amuñu pénurie huile amuñu pénurie ceeb Nous sant yàlla parce que ñu ngi sentir dans beaucoup de pays au monde am na ñoo Europe tey <coughs> boo bëggee dem ji jëndi droit jënd plus de 2 litres litre rek la may nga jënd ak mënti plus de 3 litres ci dëwlin ñun Sénégal tolluñu foofu ñu ngi sant yàlla bi nañ <coughs> excusez-moi fan mais léegi mu ngi génnaat parce que ñun encouragé yi ñu donc disponibilité produit loolu laa amoon lu ma ci wax <coughs> léegi nag mu application prix application prix ci ñaari weer yi nga xam ne lañ def ci département région de Dakar def nañu lu ñuy wax ci euh, ñaar fukk ak juróom-ñaari marché 27 marchés contrôlé nañ leen contrôlé nañ lu toll ni 12000 commerçants ci loolu noonu jàpp nañ ci 2138 commerçants yoo xam ne respecté wuñu prix ñàkk respect prix boobu moo waral ñu defal leen ay amende de 27 millions ba mu ànd ak ay saisies yoo xam ne ay saisies de produits la <coughs> mu concerné excusez-moi mu concerné ceeb dëwlin sucre bi ak ay bouteilles de gaz parce que li avons constaté ci yokkute gaz prix pratique de prix sur le gaz aussi bëri à côté des pratiques de prix illicites nous ñu constaté sur le riz sur l'huile et le sucre donc lila laa amoon lu may teunk ci ci wolof. production locale waaw di wax ni <coughs> wa di wax ni def nañu dispositif bo xam ne ni dafay encourager suñu approvisionnement ñu mën ko am ci bitim réew. mais teg nañu benen dispositif bo xam ni aussi li nga xam ni mom lañuy ñuy ci réew mi ñu mën ko jëfandikoo parce que am nañu une offre locale de substitution bu mën a remplacer li ñuy importer ci ceeb bi surtout am nañ ko ci suukar bi parce que tey suukar bi bu ñu amul problème c'est parce que compagnie sucrière def na suukar bu bari ci marché bi ñu boole ko li nga xam ne mooy importation bi ñu mën a couvrir suñuy besoin état bi nag ne man comme jàppale naa li ñuy importer pour mu disponible il faut que sama production locale aussi ma booster ko ma yokk ko pour que mu mën a dem sénégalais yi mën ko consommer ñu mën a autosuffisant pour ñu mën ko def il faut que ñu def appui à la commercialisation maanaam li ñuy jëndee ceeb bi di ko jaayee état bi jël 3 milliards 200 millions teg ko ci table bi jox ko producteur de la vallée yi ak ñi nga xam ne ni ñoom ñooy jël ceeb boobu di ko def ceeb bu ceeb bu ceeb bu di di ko blanchir mooy usinier yi ñu jox leen 3 milliards 200 millions pour que ñu mën a defar ceeb boobu jox ko sénégalais yi ñu koy consommer sénégalais yaa ngi koy consommer parce que tey suñu besoin yi ñu am li ñu soxla ci euh, ceeb bu dijj soxlaatul ñu koy ñu koy importer léegi nag mu des li nga xam ne ne moom la ñu soxla ci ceeb bu sew bi parce que ceeb bu sew bi moom la ñu gën a consommer te loolu pour mu mën a nekk dispositif bi nii rek moo ñu ko mën a may parce que bu producteur sénégalais yi gisee ni que consommateur sénégalais yi commencé nañu lekk ceebu mbay bu sew bi dañuy gën a xarañ gën a yokk seen production te tant que chaque année ñi ngi yokk seen production progressivement nous wàññi suñu dépendance par par rapport aux importations parce que tu nous avons milliards de def ci milliards de parce que commencé milliards war nañu 25 milliards Si nous production bi continuer pour que sénégalais consommer ne légui damay subventionner commercialisation riz paddy bi def ci 160 francs par kilo sur le riz paddy ba ci def ci 2 francs pour la transformation mo waral globalement mu nek 3 milliards 200 millions ma bëggoon na dugg ci li nga xam ni xewoon na fi fan yële état bi aussi def ci ay jéego ministère du commerce liggéey ci mooy alerte bi ñu amoon ci benn produit chocolatier bu ñuy wax produit Kinder nous constatons que ci yi Europe la Belgique Belgique ak euh, France dafa wax alerte alerte contamination à la salmonellose salmonellose la boo xam euh, la la constipation alors euh, feebar boobu dañ ko gis ni dafa am dañ gis produits référencé en Europe

ñu retiré ko ba paré li nga xamné ni moy yenen produit Kinder yi nga xamné ni bokul won ci lo référencé bobu ñu génnee ko def ko en quarantaine jël prélèvement échantillon yóbbu ko laboratoire sunu laboratoire national bi ko laboratoire analysé laboratoire bi génnee résultat yi il y a de cela dix jours xamal ni ko alhamdoulillah Sénégal ñun produit yi nga xamné ni mom lañ fi amone té mu concerner lo yoy ce n'est pas contaminé à la salmonellose Manam gisuñu ci fièvre bi Lolu mom lañ leen doon bëgg andil xamal leen ni que ministre du commerce ci taxawayam buñu xolé approvisionnement buñu xolé prix li gëna am solo ci li ñuy liggéey qualité des produits la sécurité sanitaire du consommateur sénégalais lolu mo waral sax tay le chef de la division du contrôle de la qualité et de la sécurité des consommateurs mon mu venu fi ak parce que mon modèle def analyse laboratoire mon moko yobu laboratoire te mon moo conclusion yi nga xamné ni mom lañu gis ci résultat analyse